retraite jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko le quotidien yéenikaay mi bi ne attention de bu nu moytul nag musiba mbaa bokkumba dana bu ba nga xamante ni moo nekk ca dëkk ba te dara waralu ko nag lu dul usine bi nga xamante ni moo fa installé wu ñu ngi sàkku tamit ay indemnisation ci ICS ndax mënuñu nekk ci biir dëkk ba di leen poulier suba ngoon guddeeg bëccëg te amalu leen benn njariñ yéenikaay bi ñu xamal ne population ba génnoon nañu dee ci diwaanu Mboro Mboro ak Daaru Xuddoos xeex bu métti laa la wax ba cité Taïba ak poste de garde bu usine ba lépp la taal jamono ji ñu wax ak yéen bëri ci ay ndaw yoo xamante ni jàpp nañ leen yóbbu ca kaso ba population ba nag di sàkku ñu libéré leen ci na mu gën a gaawee la waral coow lii yépp nag moo di usine ICS bi nga xam ne xet gamiy dégagé ca biir dëkk ba moo jéggi dayoo ñoom population ba di sàkku indemnité ndax biir dëkk ba amatul kenn ku wér les ko xamal nañ ko ko sax ndaxte jël nañ seen juróom-ñaari dëgg teg ko ci taabal bi bokk na ci li yi pour ñu dem wuti ji parrainage lii metti na lool laa la wax député Benno Bokk Yaakaar yi te nee nañu lii musul am président Macky Sall bu daan nekk candidat pour ñu dem ci parrainage bi daf leen di jox moyen waaye Amadou Ba daf leen a seetaan député Benno Bokk Yaakaar yi yemuñ ci loolu ndaxte ñu ngi xam ci mbir yéenekaay bi ne manque de considération bi nga xamante ni yenn ci ay ministres yu nekk ci biir gouvernement Amadou Ba bi def nañ ko député yii metti na leen leen ba fu metti yam am na ci ay ministre yoo xamante ni jéemuñoo liggéey sax député yi jàppale wuñ leen taxawuñ leen yéenekaay bi ne en tout cas ci séminaire bi Amadou Ba dégg na dëgg dee ndax député yi lépp lu ñu dencaloon ci maire Amadou Ba mujjee nañ ko koo wax ba tey yéenekaay bi des ci conséquences yi nekk ci attaque bi ñu attaqué woon consulat bu Sénégal ci diwaanu New York yéenekaay bi ne arrestation yi fi mu toll nii mu ngay taxarnaase ndax jamono jii may wax ak yéen El Hadji Kayre jàpp nañu ko Serigne Touré jàpp nañu ko Saliou Diop jàpp nañu ko ñoom ñëpp ay lañ leen tegal nag ba daal leen di jàpp bu dee El business la doon jéem a lijjanti ñu jàpp ko yóbbu ca kaso ba Serigne Touré moom itamit daf doon def déclaration de perte ndekete turam mu nga fa doon xaar ni muy yegsi ak nañ koy jàppee benn la bu dee Saliou Diop moom dañoo lijjanti ku ko xam ba fekk ko fa mu nekk jàpp yóbbu ca biir kaso ba jamono jii may wax ak yéen ñoom ñëpp teg nañ leen loxo enquête yéen kaay des ci mbiru politique ak ñëw Karim Meïssa Wade mii nga xam ne jamono ji nag lépp a ngi bëgg a leer yéen kaay bi dañu xamal ne Karim Meïssa Wade def fi mu toll nii gi mu lancé woon commencé naa jur njëriñ dèjà Sada Ndiaye ak Kalidou Diallo mii mujjee nañoo dellusiwaat ci PDS li waral lii yëpp nag moo di lancement opération ñibbisi bi Karim Meïssa Wade woote woon moom Fara Wade nag ñëpp a koy xaar ci Sénégal yàggatul mu daal teg tànkam fii ci Ndakaaru profité nag ci congrès bi nga xamante ni waa PDS ñoo ngi koy waajal ngir dugg si Sénégal tàmbali campagne bu dee Nafissatou Diallo bu PDS moom mu ngi xam ne ci biir yéenikaay bi ne lépp lu ñu war ci wàllu politique fi nii def nañ ko congrès bi moo des bu xamante ni amoon na ko ba ñu waroon a def délibération ci alxamis ji amaan na beneen dossier laa la wax bu mooy dafay génnee ay xibaar yu mën a yàq administration bi te tàggoowul li moo tax Falla Fleur amaat deuxième mandat de dépôt di beneen dossier boo xamante ni moo ngi ci ndoddam fekk patron nag président Ousmane Sonko moom tamit mu ci ay difficulté ñeel radiation bi yéenekaay bi li ñu ne gannaaw ba avocat Ousmane Sonko yi saisiré Sénat ngir mu daal di àddu ci lànk yi nga xamante ni direction des élections lànk na ne du joxe fiche de parrainage bi Ousmane Sonko Sénat naa nag ni ki démb doo nga amal nañu waxtaan am na ay ponk yoo xamante ni tënk nañ ko jamono ji ñuy wax ak ñu ngay bind correspondance benn danañ ko bind avocat Ousmane Sonko yi ñaar danañ bind tamit direction générale des élections te bu nu maytul sax tey jii ci alxames ji ñoom avocat Ousmane Sonko yi danañ jot seen tontu le regard kay ne société civile bi de fi mu toll am nañ lu leen naqari ndax jàpp nañ ne direction des élections fi mu toll nii des décision de justice ñu daat koy du mooyu ñoom membre société civile yi yemuñ ci loolu de ndax ñi nga xam ne ci biir yéenekaay bi ne salfaañee gi ñuy salfaañee yénn ci ay àq ak yelleefu leader ci biir réew mi mënuñu comprendre am xam ne ci biir réew mi loolu dafa a arrêté ci nii bi la journaliste Serigne Mountakha nii mu di ay caaxaan waat na ko rawatina lu jëm ci wàllu sécurité Touba Serigne Mountakha nag gannaaw Fall yaa son sant gi ñu santoon Baye Fall yi ñu yor sécurité Touba def na ci bilan ba noppi ne daal sàkku ci FDS yi police ak gendarmerie ñu bu mu a sa taxawaay bokki konti leen di abonné bàyyi xel seen seen chaîne YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoo ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah